asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa euh, dama bëggoon rek ñu ñu dellu gëm ne le Sénégal est une république lan mooy république luñ waroon a xam la ba luñ ci dugg lii nga xam ne moo xew Touba euh, flagrant délit sans complexe amul looy ragal violé loi yi nga xam ne moo tënk élection yi la Macky Sall def Macky a insulté le conseil constitutionnel du Sénégal liñ takk téye ëmb ko mu transféré le pouvoir di conseil constitutionnel yóbbu ko Touba taxaw moom ci boppam réglement bi nga xam moom lañ waxoon pour les communes moom mu taxaw ne Touba Mbàkke benn liste fi am benn benn ci loo xam ne ban ko tënkeeg léegi yàgg na ñëpp di ci liggéey mu koy taxaw wax ko wax ko lii du dëgg du yoon ay sénégalais lañ bokk ci réew mi xaalisu trésor moo jógee ci trésor bi dem Touba moo dem Tiwaawan nag Njaasaan kilifa yi diine yi jox leen respect askan wi delloo nu ñu njukkal amuñ lenn lu ñuy weddi wala lu ñuy dingat ci seeni maam waaye nii ngeen di doxalee jamono yii dafa dëppoowul te méngoowul ak yoon te alxuraan nanguwu ko kan boo ko jubal teg ko ci yoon Macky sàll ba mu ko waxee ngeen waroon fel gémmiñam ne ko bu ko waxee fii bu ko fi waxee ndax dëgg du yoon waaye wëree su koo tàccu yéen waa Njaasaan wut leen benn list yéen waa Tiwaawan wut leen benn list waa Yoof Laayeen leen benn list waa Axndulaay wut leen benn liste dama ne waa Jaamal wut leen benn liste ñaseen yi wut leen benn list dama ne kan boo ko waxante dëgg nu sommes dans une république il faut respecter les sénégalais Macky Sall ba mu waxee loola bu fekkoon ne ay dëgg tax dëgg moo tax yàlla tax nuy wax tibb suuf sànni ci gémmiñ gi lañ waroon a def mais amul droit de transférer le conseil constitutionnel di ko indi Touba doon procureur bu président ba doon lépp di décider dama lu doy waar ngi nii Sénégal yi jóg leen taxaw ànd ko mat ni ko Macky Sall defe ak fi ko defe jaaduwul Macky sa du ko war def le conseil constitutionnel nga xam ne moo ëmb lépp ba ci système électoral bi ak lépp nas ba teg commune bu ne mu daggal la Macky ñëw ba boof Touba mais Touba gi benn liste fii am dama ne ba mu ko waxee loolu xëpp suuf ca gémmiñ ka waaye nag àddunaa ngi nii lépp am njàng la te dama ne tous les xalif généraux ak képp ko xam ne kilifa diini ga wala goog aada dama sa làmmiñ war naa jib lii askan wi du ko nangu opinion internationale a ngi dégg américain yaa ngi may dégg français yaa ngi may dégg Nations Unies ngi dégg lii may wax dama ne kan ko teg ci yoon Macky Sall bu war a dem day dem waaye nii ñu ko bëgg a defee dëppoo ak règlement bi le conseil constitution war naa saisir Macky sàll yóbbu ko ci yoon wala askan wi yóbbu ko ci yoon waaye di askan wi du ko nangu ci àdduna waaye duñ ay jaam duñ ay jaam Sëñ Tuubaa wàccoo na ak noonu duñ ay jaam ay taalibi lañ ay nit lañ nañ ñu respecté jox ñu gëdd dama ne nañ ñu respecté jox ñu gëdd kon ñu jéggul te ñaan jàmm man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences